jaaratullah soxna jaaratullah dama jël ndam li soxna jaaratullah Mariama Bousso Mariama soxna jaaratullah amul jigéen jigéen jaaratullah soxna jaaratullah jigéen jaaratullah jaara bismillah ma jóg man moo jigéen ñi ci dul dul yaa jaaratullah jaara ma sant lillaay lillaay jigéen ñi ci loolu yaa jaratullah jara gi ñëpp ñëpp ko gaadul wala siyaare ka ñaan jaratullah ñëpp ñëpp ko gaadul wala siyaare ja jaratullah soxna jaara bu dul kon ko sunu maam maam jaara la ilaha illallah bu jaaru jëy jaratullah sunu maam Maryama jaaratuna kon jaara jaara bu dul kon ko daw da tuub jaara fi boroxam daa xare duñ dem jannatullah man jaara baraxa waa jannatullah jaara ne la ko alhamdulillahi waa ale man balaxay man jaaratullah ku dajeek taarix ba topp sëriñ bu sëriñ waa du dem naa ngir maam jaaratullah bale ku dajeek taarix ba topp sëriñ waa du dem naa ngir maam jaaratullah Sojaara sojaara yaa doonu Mariama ma yow ma jaratullah alaykum bu sa jaratuna ya dum mariama jaratullah ale hisab mariam ru la jibril ñoo ba yoko nu jaratullah mariam ru la

la Mansour yaa ngi bëri yaa ngi lilla Ousmane xol yaa ngi ruuj la la la Mansour yaa ngi lilla jox leen loolu sabane xol yaa ngi ruuj cër yaa ngi lillaay jox na la ko kuntu dagg lillaay soxna jaara xol yaa ngi ruuj cër yaa ngi lillaay jox na la xol yaa ngi ruuj maam jaara sabane xol yaa ngi ruuj cër yaa ngi lillaay jox na la xol yaa ngi ruuj jox na la ko

busabale busabale busabale giru la farakil la jox na la ko giru ya man jaara jaara xol ya giru ya farakil la jox na la ko ya giru ya gi wa giru la jaara ya jersiya la la la sukku tey jooy hadiya lillah maam jaaratullah jaara wàcc na sukku tey jooy hadiya lillah maam jaaratullah jaara yaa jarsiya sukku tey wàcc na sukku day joxe la ko war hadiya lillahi girma jaratullah atara ya jarsiya aradiya sukku day joxe hadiya lillahi girma jaratullah jarsiya aradiya wàcc na sukku day joxe la ko war hadiya lillahi sunu yéene waaw suñu jëfin nangu gu yéen xamoole noo Bamba fi la janaati bila kullu sunu yéene say sukko tay joxe ay hadiya lillah ngir maam maam jaaratullah بن يعقد في بغداد صادق مسق جندك الجار الله yàq bu nu yàqi bu nu yàqi li Bamba defoon saa def sax digaloon jaratula mam jaara bu sunu seemal jaaratula jaratullah ajalan dem leen ziyaara ji maam jaara jaara xudwatina dem leen ziyaara ji maam jaara jaara xudwatina dem leen ziyaara ji maam jaara jaara xudwatina dem leen ziyaara ji maam jaara jaara xudwatina def la fi Porokhane ca jaratullah def la fi Porokhane te doy rasoolu te doy rabbul wara sayqu baaba ba jaaratullah nu walu kunu doy kunu doyloo te doy rasoolu te doy rabbul wara ba jaaratullah ay sa danaa tu doy doy wax leen seex baaba loxo te kaw loxo te kaw loxo te kaw loxo te kaw loxo te kaw loxo te kaw ca doy la du doy doy la Bamba du doy abadan ca doy la du doy doy la leen Seex Bamba du doy abadan Mbakke te mooy danay xayr billaahi billaahi nu doy doy na Bamba jëf na yaa jëf na yaa jëf jëf jëf tax ba lu am bul moo di xoot bul xalqi billah yaa nu doy doy na si yaa nu doy yaa nu doy mana leero qadillah dara taaju dara maati fii ci waa yaa nu aqaadiroo na jaaratullah taaju dara maati fii ci waa ma jaarara yow gëne la ca diiwaan ak dogal ya fa am sa dooma yor lépp yow maam jaaratu laa ki ca diiwaan ak dogal ya fa am sa dooma yor lépp yow maam jaaratu laa Maryama yaa ko firay jërëjëf yaa boole baatin wasaayir jaaratullah yaa bari ay ndam jërëjëf yaa boole baatin wasaayir jaaratullah yaa doon a bin lay lay la yaa doon a si lay la yaa doon فاطمة لما جارت الله يا دن عامل يا دن آسية يا دن فاطمة جارت الله يا دن عامل يا دن آسية يا دن فاطمة لما جارت الله من يا دن jaajëf jaaratullah jabi abdi ya motoray di xey sabor fa wajaajo jaaratullah ya ya refet bu juddu su gorte yaa ami may jërëjëf barkeel nga selli cosaan ah. maam jaaratulaa bu sabali gorte yaa ami ah, waaw barkeel nga selli cosaan jaaratulaa jigéen ñu booyal naanu waaw bay badinde jigéen ñi booyal naanu waaw waaw bay badinde maam soxna si amee jigéen ñi booyal naanu amay bëgg moo la way loo way jigéen ñi booyal naanu amay bëgg ninde arama mam jaara mam jaara am jaara mam jaara faral so do la ay karama karama mam jaara am moroom sa am moroom la ko waral sa doom amoo morom musa am morom yaa ko waral yaa ko waral sa doom mooy karaam sa Ali Jaara fa maam Jaara di maam Jaara ba xaaba maam Jaara faral kero waaw waaw sub xiyaama maam Jaara am xaama yaa ko waral kero sub xiyaama le sodo waaw waaw jox jinne jaara maamam jaara tey jaara fa maam jaara am hidaaya am sun ajo so jaara mamam jaara so ajo ajo ajo ya ko waral ta do ajo saban jaara famam jaara mam jaara harbul jimi mam jaara jukku rabet rabet hime jaara mamam jaara harbul jimi dakkal nga ba mu doy géej gi waaw dakkal nga ba mu doy géej sabal waa jeri bañe bu ki jël maamo fujore kan ka bay nga bay o ay la la la ak jigéen soxna jaara ara amen ni yàlla ki la jigéen soxna jaara xawna ara mel na ara amen lak yaa leyaa dëgg la jigéen ñi jaara soxna jaara xamaara melel yàlla yaa lee dëgg la jigéen ñi soxna jaara yàlla ki yaa leyaa yaalee mbalaki yaram muntaqa badiro yàlla bi yàgg te koy ñaan ba bay sama la ko ñaan may la dimbaloo yermande dimbal yermande ñu ngi la koy ñaan ba danoo yaay borom tuuba mbalaki yaram muntaqa badiro yàlla bi yàgg te koy ñaan ba Baloo yërmande yërmande la koy abadan yaay borom Tuuba nak yar man yaay sagiru hatini sa muntaka gil koy ñaan ba abadan ay borom Tuuba dimbalo dimbalo donc gil koy ñaan abadan yaay borom Tuuba لك يا منتقى سليم borom Tuuba balaki yaram ne sayra batin se amna ka ngir na koy ñaan ba abadan ñaan ko may la wala yarmande sama ne way sa baye moy yaay borom Tuuba yàlla bi yàgg bi di koy ñaan ba abadan ay borom Tuuba loo yërmande sama baay sama baay mooy borom Tuuba balak yaram ne ni da koy ñaan ba abadan ay borom Tuuba bala yarmande yarmande no ngi la koy ñaan abadan ay borom Tuuba